yéen wa Argentine ci jamonoy été bi da ngeen di yittewoo ay bagages yu rafet baax garanti te yomb lool loolu nag Omar moo ma ci doy rafet garanti baax méngoo ak jamono te yomb bàyyil ci loxo Omar commerçant yi askan wi romb Omar mooy romb seen njariñ seeti leen place Omar bu bees bi ndax dafa tuxu léegi mi ngi ci onse bi ci Valentine Gomes 26 19 place Omar xeetu marchandise bu ngeen soxla ci été bi am na fa ay ver ay sac mucceela cartera ay weñ acero ay chaine ay jaaro bisuteera selfie ay montre ak i casquette di cap yu rafet lool yéen ñi nekkee ci àll bi teggil nañu leen coonab di pass di ñëw ngir di jënd marchandise fu ngeen nekk ngeen di nekk toog te def seen commande ñu defal leen ko ni ngeen ko bëggee livrer leen ko woote leen rek ci numéro bii 11 23 73 30 30 11 23 73 30 30 li ci gën a neex nag mooy ca place Omar dafa am discount maanaam prix yi dañoo yomb lool ak Omar été bi toj na ba noppi. ñu ngi ci place Omar bu bees bi ñu ngi ak kenn sëñ bi tur bi naka la. waaw sama tur Abdoulou la. fan nga jógee. di li nga ñëwee ci place bees bi tey man nga ñu wax li nga fi gis ak prix yi ndax yomb na. wax dëgg yàlla bagage yu rafet a fi am te prix yi la fi am wax dëgg yàlla waaw yu baax sax yu baax sax yu xéw la yoo xam te ni maanaam boo duggee ci ancien doo doo gis doo doo gaaw gis yu prix bi wax dëgg yàlla te rafet na tool yomb na oui. lan ngay yi. moom ñëpp daal na ñëw ci Omar parce que waa ju baax la tamit xam nga waaw te bagage bi rafet na yomb na xam nga xéwal na quoi waaw gars yi daal damay wax ñëpp rek nañ ñëw quoi na ñëw ci Omar Omar xéwal la gars yi ñu bari xam nañ ko sax mais xam nga mais fi noonu dafa gën a am bagage yoo xam ne bagage yu rafet la te yu qualité la quoi soo ba léegi maa ngi fi di tànn mais ba léegi mënu maa mënu maa terminé quoi waaw bagage yu rafet la xéwal leen trop gars yëpp nañ ñëw. asalaamaaleykum mbokki sénégalais yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant man la Omar maa ñëwoon doon leen waar sama place bu bees bi bi nekkee Valentine Gomes Ipasso Valentine Gomes benti say jeesi noybe local bu bees la local Cilor. am na bagage yu yu rafet si été bi yoo xam ne waajal naa leen ko si été bi bagage yu rafet lu mel ni saak ay mochila ay montre bichetera verre tamit am nañ si modèle yu rafet rafet rafet rafet rafet am na ceinture cap waaw bagage yi rafet daal am nañ ko daal pour été bi xam nañ li gars yi di soxla si été bi yëpp yëpp fàggu nañ ko acéro yeeg yooyu yëpp am na lu si waay bëgg rek boo yeeg si fii dinañ la ko defal prix bu baax a baax a baax sa été bi tamit dañ see def prix yu baax prix yu baax dama see def discount bu baax a baax ba nga ñëpp dinañ si mën a jot été ji a liggéey suñu borom def taw fi wax ñu am dara waaw lépp am na yërmande daal yërmande ji fi nekkan daal mi ngi fi ba néga ni la fa nekkan rek ba néga ni daal Omar ba woon daal ba néga ni moo nekk nii rek liggéey gars yi rek waaw noonu la ba tey daal waaw bagage yi nag moom mi ngi fi yëpp ngi fi moom am na moom prix yu baax daal yu baax a baax daal lañ koy defal discount bu baax a baax a baax a baax boo ñëwee ba si Valentine Gomes bi 26 19 foofu mooy local boo ñëwee maa ngi ko peinture sax vert jaune rouge drapeau nekk si provincia képp ku si bëgg bagage rek ak foo nekk si biir Argentine rek ñu wooyee si 11 23 73 ak foo mën di nekk rek bagage boo soxla dina la ko mën a dugal nga mën koo jot bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw boo ñu wooyee rek si bala muy mat 24 ngaa jot sa bagage yooyu yëpp ak foo mën di nekk si biir Argentine man nga ñëw woo si 11 23 73 30 30. kon yéen ñëpp maa ngi leen di xaar fii si Valentine Gomes 26 19 local Thilor maa ngi leen di xaar yéen ñëpp fii bagage yi moom am na vraiment yëpp ay maafe yàpp la bu ngeen ñëwee moom yéen a ma gën a xam waaw comme nawoon rek prix yu baax lañ koy defal waaw maafe yàpp yu baax moo fi am. maanaam prix dañoo yomb lool ak Omar été bi toj na ba noppi